suffisamment de de fiscaliser aujourd'hui tu es d'accord mm-hmm. le, le Sénégal le taux est très faible mais pour fortifier afin que ça pousse mais la sensibilisation nationale pour que chaque Sénégalais pour rassurer mm-hmm. euh, ku doon daw inspecteur impôt et domaine. Mm-hmm. Mm-hmm. mu nekk président. oui vraiment nag. Euh, le problème de la fiscalité là. non yow attends ñii seen liggéey. Mm-hmm. seen lu lu ñu féete woon. mooy fiscalité. Eh kon kay ñooñu bu ñu ñëwee ci réew mi nag jàpp naa ni. li jëm ci wàllu dina gën a yaatu. maintenant comme comme comme li nga wax. li nga wax sànq le modèle économique. des mourides par exemple. c'est un modèle boo xam ne. bi ñuy tabax masaalikul masaalikul jinaan dañuy wax ne ku si nekk na ci def ku nekk jàpp nga ni. non ñaar téeméer la woon mille cent trente cinq. permettre ku nekk nga contribuer ci am nañ ñun suñ ay façon jëfin ak suñu mhm. ay modèle du ma seen oustaz solidarité musulmane dans les autres pays ni ñuy organiser la zakat mais yow mënoo nekk sénégalais nga yore ay milliards mhm. alors que sa mbokk jullit sa mbokk sénégalais amu ko mais ñii ñaar li ñu am deux facteurs yi nga wax léegi léegi mooy d'abord la confiance. parce que man su may jël sama alal di ko def ci yow. day fekk mu wóolu la. donc le contrat de confiance est là. ñoom balaa ñoom ñuy egsi ci ni ñuy ñëwee. Mhm. ñi leen gëm topp leen. daf leen jaraloon ñuy jël seen alal di ko ci def. kon Ousmane Sonko la la fi buroog mooy la xam man du ma joolaa bu muy wax buroog mais tey par exemple sur l'apport de la diaspora après dinañ ñëw ci loolu euh, tey diaspora bi. nan la mën a intervenir dans le cadre de la coopération diaspora bi nan la ñu mën a indi ay partenaires mais contrat de confiance boobu su amee ñu teg climat boobu moi je considère que les Sénégalais am na loo xamante ni mun nañ ko régler seen bopp en charge naan na ci xam nañ ko ñun Sénégal sax 2016 am nañ fi autorité du waqf waaw Mame Mbaye ah, bi ngay wax sànq papaam Imam bokk na ci précurseur mais am ah. euh, bi muy wax hmm. moo tax mooy contribution la waaw loolu ay contribution la ci wàllu social yi ñuy wax le journaliste dafa ne Sonko dafa <laughs> yi nga xam ñu ngi koy defal kii loolu bu ñu ko doon bu ñu ko doon bu ñu ko doon utiliser nee na lu ñuy dem di leb sax du du bëri ñi mu seet nee na ba mu def ba mu defee ay ay ay investigation mhm. mais il a donné raison à Sonko à Sonko ci pàcc boobu te boobu Sonko nekkul président d'accord maa ngi ñëw oui seen participation cette fois-ci du doon participation. ah non non ah. j'ai entendu un jour. Ousmane ko dire que li ñuy def ci recette fiscale. Hmm. Sénégal li muy def ci recette fiscale. suñ ko defoon fi mu ko war a def. Mhm. dina feeñ ci sénégalais bi. Ah. donc nous notre problème. Mhm. problème de c'est pas un problème de recette fiscale. peut-être mën nañ ko ñoom comme li Cheikh Omar Talla wax. Mhm. ci loolu lañ ne dinañ xam nan lañ koy gën a organiser ba nga xamante ni dina gën a yokk. Mm. j'en j'en fais confiance xam naa la personne. maintenant est-ce que xam nga ni sàcc day xew ak a xew yi. <laughs> waaw sàcc day xew ak a xew yi. xam nga quand on dit changer de système ou les gens du système ak yàppal bàyyil mooy que ni un système c'est quelque chose ki est là avant le profet sallallahu alayhi wa leneen moo fi nekkoon bi prophète bi ñëwee ci la indi li ñuy wooyee diine islaam bi mu ñëwee indi diine islam est-ce que dafa dàq ñi mu fekkoon màkk dem indiwaat yeneen nit yu def ko ak ñoom non non non dafa ñëw indil leen loo xamante ni c'est une religion bien organisée et ficelée nii ngay def pour bokk ci boo ci bokkee nii ngay comporté woo pour ñu mën la wax ni la jullit nga hmm. maintenant on a on a on a pour changer un système c'est juste que les hommes bi koy incarner nous avons besoin des hommes intègres pour avoir des institutions fortes hmm. ñoo xamante ni dañu am de l'amour pour la patrie mooy comme jabar bi nga nopp takk ko ak jabar bi nga xamante ni da ko takk ci da ngaa toll rek ci sëy ak bëgg a takk jabar du benn yorin ba du nekk benn quand on aime une femme dañ koy toppatoo grave spécialiste amul la nag moom saa su j'ai <laughs> mais bu fekkente ni jabar da kaa takk rek parce que da ngaa toll ci takk yorin ba du bokk ak ki nga nopp mais man li ma gëm ba gëm ko mooy Ousmane ko mi ma xam hmm. ak son excellence Bassirou Diomaye fay seen amour pour la patrie mais sérieusement ils ont fini pas mal de fois de nous le montrer te xam naa ni ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinañ def ay résultats daf ci am des fois des sénégalais yoo xamante ni dañuy yabaate ay benn lay doon par exemple man quand je suis dans des plateaux comme ça je communique avec mes internautes mu nekk loo xamante ni c'est interactif parce que daf ci am ñu intéressant ñoo xamante ni ils sont dans la diaspora di participer bu baax ci émission yi di la relancer di la wax ay yoo xamante ni ka bu ñuy wax mu ngi parler tout à l'heure de la diaspora ñoom xam nañ seen problème suñ leen interpellé dinañ ñu wax lii mooy seen problème mm-hmm. mais dañ ciy gis koo xamante ni par exemple quelqu'un comme Ousseynou Dari quand il dit que ni kilifa yow da nga ëppal président Diomaye moo la gën a conscient il faut arrêter <laughs> président Diomaye il a 44 ans j'ai 44 ans président Diomaye bi may am 16 ans laa def prise de conscience taxaw impliqué wu sur la gestion de l'affaire publique participer ci li nga xamante ni mooy ci suma réew. bi muy am 16 ans peut-être moom il avait choisi d'autres chemins. ba tey jii nii ñu daje ci espace bi. c'est pas parce que il est le président de la République il est plus intelligent que tous les autres Sénégalais il faut arrêter maa la gën a bëgg président Diomaye Faye téeméer gi na yoon seen affaire u fanatique yi il faut ngeen arrêter ko te dama xeexal Sénégal su ma deret di ci tuuru ma ñaq di ci tuuru musuma profiter ci loo xamante ni Sénégal da ciy joxe te musuma ko bëgg je suis un artiste honnête j'ai fait tour du monde presque trois fois sama métier di ma may lépp lu may am. may bay may bay. di nekk ci élevage. di nekk ci samay business oto. donc il faut que certains arrêtent. doomi Saalum Saalum di noo mhm. merci beaucoup te boole ñett. département yoo xamante te ni. Eh, am solo am ah. solo waaw man y a des choses qui baax. Hmm. xoolal non dafay baax. man nit ñi xam nañu ko na def man man xoolal. non nit ñi xam nañu ko il sport. sport culture jeunesse ak jeunesse. loolu la culture ah, sax. napp ñu nii rek noo koy accompagner. moom yow kilifa yow ñëwal fii la Pa Ousmane laaj. noo koy accompagner. sëñ bi daaw dégg nee na bi ñu ko woowee wax ko ko daana doon daw daa naroon daaw naroon bàyyi. Ah, en tout cas dañ ko dañ ko jox loo xamante ni ngand na trop. Hmm. Euh, biñ ko ko kiwee sax mënoon naa ne culture moom. mënoon nañ ko utal ministère wu boppam carrément parce que c'est un levier de développement. Mmh. est-ce que xam nga ni tey jii nii quand quand on parle de quand quand ñu ngi naan indépendance indépendance. mais man si je ne sens pas que nous ne sommes pas indépendants. mooy tey jii ni xoolal boobu ba léegi ci plateau bi hmm. ku toog fële seetaan euh, sama grand wax waaw docteur Djibril euh, euh, portable wax Lamine ñëw wax Cheikh Oumar wax ma wax nga wax danga naan ñii xanaa ay franco sénégalais lañu hmm. <laughs> ndax làkk bi waaye ndax làkk bi ah dëgg la dëkk bu la bëgg a coloniser daf lay coloniser ci làkkam ci bien sûr te ba léegi cette colonisation est Mm. donc culture dafa nekk lu doy waar. Mm-hmm. Bob Marley. Mm. nee na boo demee ci dëkk. Mm-hmm. soo bëggee xam ban genre société la. Mm. del ba bëgg a xam seen culture déglul musique ba. Mm-hmm. Oh. est-ce que xam nga ni làmb ji ñu dem yóbbu ci sport sax ci culture la bokk. est-ce que xam nga ni religion sax. ci culture la bokk donc culture dafa yaatu mhm. pour vendre un pays ou pour coloniser un autre pays da ngay jaar ci sa culture fexe ba jox ko sa culture hmm. suñu constitution ñu ne la soo mënul bind français wala mënoo ko wax am mënoo nekk candidat dañ ko war a elle est où notre culture. Hmm. Cheikh Abdou Mbacke Baara Doole xeex na ko ba sonn. elle est notre culture. Ah. Hmm. culture day dem ak tourisme. tey jii nii ku ne maa ngi visiter di Inde. Euh, lan moo la fa yóbbu. Hmm. seen culture nga dem xooli ci. tey jii kuy ñëw Sénégal ne maa ngi koy visité ji lan nga fiy xool si suñu culture ngay xool si. maanaam culture nekk loo xamante ni lu am solo la cim réew. munoon ba après on m'a dit que ni yow <coughs> secrétaire d'État pour la culture. ba tey je dis que ni doyul. doyul sérieusement doyul c'est une industrie merci beaucoup. ay Nigérian américain kon pour yow. tey si da war a doon département boppam. man boobu man ci sama xalaat. Mm. man ci sama xalaat ci li ma gëm. Mm. la dame c'est une inspectrice. Euh, de sport man j'attends des résultats ci sport bi. yu yu gën a weesu yi nga xamante ni fii la ko fekk dina ko yóbbu fu sori mais boo bëggee focus pour indi des résultats ci sport bi nga xamante ni aujourd'hui dafa nekk benn kii boo xamante ni bu bu bu incontournable ci àdduna bi football basketball handball et cetera et cetera tey jii nii fii ak JO yi ñu ngi ñëw waaw te fii dañ koy organiser dëgg la de tey jii nii ñu ngi xëcc pour bokk ci euh, euh, dëkk yi organiser les prochaine coupes d'Afrique donc yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ça demande du travail combat la mm. mais bu boobaa la culture sera laissée en rade bu focusé ci yooyu yëpp nga xamante ni bëgg na ko indil un bon résultat pour le sport ñu mm. dépassé fii ñu nekk jóge ci beneen beneen point parce que nag dañoo jël Coupe d'Afrique war a confirmer reconfirmer waat il faut un travail Mm. football bi gis nañ ni léegi dafa nekk de l'espoir pour les sénégalais nit ñaa ngi ciy génn boo naree focus ci sport bi pour teg ko mu occuper place bi mu war a occuper boo moytuwul di nga fàtte culture bi. Mm. sérieusement. donc moo tax ma ne diis na trop mënoon nañ ko jël culture ñu ber ko à part jox ko jeunesse ak sport. loolu man la. sérieusement loolu man la. mais peut-être avec ouais. le secrétaire d'État pour la culture. Pour la culture. ça va faciliter dina faciliter yan bi. te ñun ñi nga xamante ni nu sommes des hommes de culture. Mm. qu'on l'accompagne ci suñu expertise. parce que dañuy tukki di def ay workshop. Mm. di def ay échanges. di animer ay conférences dans les plus grandes universités oui. avec des professeurs oui. à Howard Oxford euh, euh, université yi ngay dégg yépp donc war nañu mën a jëlee yeneen xam-xam indi ko fii mm. mon jeune frère Ismaïla Talla IS 814 bi ngeen dégg mais IS son programme pour la révolution de la culture mais sa waay affaire bu doy waar la ci waxtaan ak man lu doy waar. na ko dalal ko parce que il ne faut pas que ñu gis nga dañu nekk. ba àdduna boo xamante ni euh, grand bi wax na ko léegi mutation sociale dafa am wax na ko léegi tout à l'heure actuellement ñoom ils c'est des gosses yoo xamante ni tey jii nii fi culture toll ñoom dañ ko téye ñoo ci nekk. Hmm. les cultures urbaines tey jii boo bëggee ñu am ñu ñu ñu ñu ñu mel comme Nigeria. boy yi xam nañ secret bi. xam nañ système bi soo bëggee ba ci cinéma. ba ci cinéma ñu mel comme Nigeria. di concurrence di am ay Nollywood comme comme Nollywood boy yi xam nañ secret bi. xam nañu kii bi. Mm. donc c'est c'est des que chaque Sénégalais s'implique. Mm. que chaque Sénégalais s'implique indi sa contribution. noonu lañ leen di accompagner. pour sama taxawaay moom. Mm. du du nekk lenn lu dul. continuer d'être sentinelle bi ma nekk mais en accompagnant ce régime ci li ci yombal ci li yombal la création d'emplois et surtout la formation accompagner leen aussi ci citoyenneté ak l'impact environnemental. am na solo et cetera. département santé non man ay tange yooyu. xam nga xam nga xam nga tange. xam nga tange xam nga tange xam nga tange c'est un animateur. wax naa ci c'est un animateur. il faut qu'on régularise l'espace public. parce que on doit retirer la parole à certains. d'accord wala ku ci nekk animateur na animé Pape Cheikh Diallo doo ko dégg mu dugg ci yooyu. parce qu'il sait que c'est un animateur. Hmm. keneen ak keneen doo ko dugg mu kii parce que xam na ni animateur la mais kii dafa mos yëf yi à un moment il s'est transformé à un je sais pas quoi peut-être. yenn politique yi di jël ay position jàppal bàyyil gars yi di ko ci jox ay kii nii mu dem ba foog ni mais yooyu def fi arrêté loolu kese la alors département santé Marie Khemesse Ngom dem na Ibrahima euh, Sy ak Sy nga nekk ci secteur bi xam ko euh, certainement suivre nga passation de service yaa ngi fa woon sax laay wax du ma ne suivre ko ah. alors impression bi nga am déjà ci kii waaw tout à fait je voudrais juste euh, hmm. la liberté d'opinion elle est consacrée dans ce pays dëgg la il est vrai man damay déglu ay animateurs ñuy wax lu leen neex que ce soit opposition et pouvoir moo tax ma ne plus jamais ça il faudrait aujourd'hui que gars yi arrêté di fay ay nit sax ñu nekk ci réseaux sociaux yi. di ñu sonal. ku wax ñu saaga la. man man du ma déglu ces gens là man xaw aw ma benn lu ma koy jugé aw ma préjugé ci moom. musuma ko déglu. d'accord dama koy gis ak muy activer wu. Hmm. mais loolu il faut le dire de part et d'autre.